salaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañuy ñëw ci li nga xam ne moo jot a xew ci ngoonu tey ji rawatina wàllum Ligue des champions balaa ñuy ñëw ci transfert ak yi ci aju ñii di AC Milan dañoo daanu ci match aller bi seen digganteeg Inter mën nañu wax ne AC Milan moo doon recevoir donte ne benn stade bi la waaye Inter daf ko daal di duma ñaari bal ci dara ñaari bit yu gaaw a gaaw sax mën nañu wax ne ci ñetti minutes képp ci la ñuy di Inter daal di gagné match bi huitième minute ci la ñu marqué premier but voilà bi ñu dawalee nag ba ci onze minutes ci dugalaat beneen loolu moo leen jox ndam voilà ñaari bal ci dara ci jogante googu ki nga xamante ni mooy Edin ko ak ki nga xamante ni mooy Henrik Mkhitaryan ñoo marqué ñaari bal yooyu la AC Milan nag na def na match bu rëy football na ba bëgg a dee mais dafa fekk ne Inter da koy jiitu te Inter équipe la boo xam ne défensivement dañoo taxaw AC Milan nag seen bi mën nañu wax ne sax voilà ñoom ñooñ gënoon a gis ne ñoo gënoon am xarañteef te it ñoo ëpp ay joueur technique tey ji rek maa ngi ko doon def ci benn maa ngi ko doon wax ci benn groupe waaye jàpp naa ne joueur Inter de Milan ñoo gën a am dégg maam taxawaay maanaam physiquement ñoom ñoo gën ndax dañoo ay ponkal te it ay maanaam Inter ñoo dàq xeex benn joueur boo xamante ni daf leen manqué Rafaay Leao moom nag dafa am li nga xam ne mooy blessure fan yële ñu génn voilà ci weekend bi ñu bëri doon séentu yaakaar ne tey jii dina jàppande mu joué ci match bi moom bokkul voilà ki nga xam ne mooy Brahim Diaz daal moo fa nekkoon doon góorgóorlu ànd ceek yeneen gars kon ci joŋante googu noonu la demee kii di Henrik Mkhitaryan boobu léegi nga xam ne moo marqué seconde but bi moo dal di nekk li nga xamante ne mooy homme du match voilà moom ancien bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy statistique yi dinañ ci ñëw balaa ñu ñëw ci li nga xamante ne moo jotale ñaari équipe yi ndax bu ñu xoolee li nga xamante ne mooy ñaari équipe yi euh, AC Milan bi mooy ñetteel bi yoon muy los against ñi di waa Inter Milan ci 2023 bi maanaam ci at bi ñu nekk Inter de Milan dafa dóor AC Milan ñetti yoon maanaam bi ñuy tàmbalee at bi ak léegi loolu yàggul janvier bi dóor na ko 3-0 voilà bi ñëwee ci février mu dóor ko 1 tey ji mu dellu ko dóoraat 2-0 ci wàllum demi-finale Ligue des xamal ne match bi jeexagul de match bii match bi waajagul jeex voilà ndax retour bi xam naa ne beneen xar kanam dina feeñ ci ñiiri waa AC Milan ndax nit ñu tàmbalee jongante gi mel ne daal foofu la ñuy defee ay njumte Inter ndax leen daal di leen dugal. waaye nag mel na ni xëy na dinañu gën a waajal seen bopp ci match retour bi comme ni nga ko waxee derby la du yomb benn yoon waaye nag ñu gis ne AC Milan bi mooy premier défaite boo xam ne jël na ko ci wàllum Ligue des Champions contre beneen équipe bu Italie mën nañu wax ne daal. daanaka équipe yi mu doon dajeel te ñu dégg bokk dëkk foofu la ci Italie ci wàllum Ligue des champions kenn mësu ko ciy dóor te jii boobu moo nekk première défaite boo xam ne ñii di AC Milan ko jël nañ ko ci wàllum Ligue des champions contre beneen équipe bu dëkk foofu la ca Italie. ñu gis na tam ki nga xamante ne mooy gardien wu Inter de Milan bi nga xamante ne mooy André Onana moom tam dafa dal di def jaloore ndax kat bi moo nekk seven clean sheet boo xam ne am na ko maanaam juróom-ñaari match yoo xamante ne daal dina koy jouer ci Ligue des voilà te encaissé ci benn campagne lu ni mel daal mosul am voilà moom mooy premier gardien wu Inter bu def lu ni mel ci benn campagne mu daal di am li nga xamante ne mooy set clean sheet ki nga ki ko def mooy ki nga xam ne mooy André Onana. léegi nag bu ñëw ci li nga xamante ne mooy statistique yi comme ni leen ko waxee sànq ñi nga xamante ñoo di AC Milan nañu lu rëy ndax bu ñu xoolee sax ñoom possession de bi ñoom ñoo ko téye ñoo gën a football voilà mën nañoo xool pour cent pour AC Milan voilà 5 40 43 pour cent pour ñi di Inter Milan bu ñu xoolee total des tirs foofu moom Inter moo ëppale am na 16 ñi nga xamante ne ñoo di AC Milan am lu toll ci 13 bu ñu xoolee li nga euh, am nañu lu toll ci 5 de 5 ballon nañu ko ñii di AC Milan ñaar képp la ñuy daal di cadré bu ñu xoolee tir non cadré yi kon mën nañu wax ne li ëpp ci seen i dóor jaarul ci kaay yi tir ñoom am nañ ci 9 waaye ñii di euh, Inter Milan 6 képp lañ ci daal di am tir contré yi foofu it bu ñu xool Inter am na 5 AC Milan dal di am lu toll ci 2. léegi bu ñu xoolee li nga xam ne mooy corner foofu Inter 3 la am AC Milan am lu toll ci 2 hors ku ci nek def nako ñaar yoon fot nak mom an inter ñoko gëna def comme ni nga waxe ñom ñoo gëna agressif tay ñoo gëna nek ay xex kat def nañu tollu ci 16 ci ay fot ñom wa inter de Milan voilà way fofu it man nañu gis ni AC Milan ñom ah, def nañu li nga xamne moy 14 ci ay fot carton nak fofu eh, AC Milan amna lu tollu ci ñaari carton jaune inter am lu tollu ci benn buñu xolé nak li nga xamante moy ballon bi ci tanku AC Milan la ëpp lu mu nek manam passante yi AC Milan def na lu tollu ci 471 ci ay passe Inter Milan 352 la def ci ay passe voilà bu ñu xoolee tam li nga xam ne mooy parts yi ñu réussir naka noonu AC Milan 391 ci ay passam réussi nako manam 84 Inter nak ñom seen passe yi 270 képp lañ ci dal de réussir muy 77 pour ballon yi non fofu euh, AC Milan am lu ci 42 yo xam réussi nako na Inter 28 lañu dal di réussir transversal yi Inter Inter de Milan 4 AC Milan 4 kon lool moom mooy li nga xamne mom lañu mëna jangal ci statistique yi manam bo jangati mbiri bu baax a baax Inter ñoo gëna xex xeex AC Milan ñu mit gol nañu ndax football nañu passante nañu def nañu lu nek mais marqué wuñu inter daf leen def li nga xamanteni moy li ëpp njëriñ moy duggal ay bal te mu ngi profito ci jamono bo xam xeyna ñom wa AC Milan sen défense bi taxawul won trop ñu profito ci ñetti minute dal di duggal ñaari bal lolu mo ray jongante gi comme ni na ko waxee fileeg semaine képp ci lañuy amal li nga xamanteni moy retour bi manam juróomi fan dal man nañu wax ne mo dox suñu digënté ak match retour yi AC Milan Inter Milan ñoo ñëk a footballaat ci retour bi voilà bo mu ngi wara nek le 16 bi di ñëw manam ci 30 bi di ñëw buñ ci joggé nak le 17 ci la ñi di Manchester City wara a dalal dalal Real Madrid la ca Etihad Stadium ca Angleterre. gannaaw loolu dinañu ñëw ci li nga xamante ni moo aju ci CAN U20 bi nga xam ne ñu ngi koy amal wala CAN U17 bokk Sénégal bi mu amee qualification ci ngoon. tey ji ñii di Maroc ñoom it daal ñu jot seen bos Maroc dañoo dóor Algérie 3-0 voilà loolu mooy li nga xam ne moo xew kon man na ni ñoom it jot jot nañu seen ticket dem ci demi-finale yi waaye itam qualifié ci li nga ne mooy coupe du monde bi loolu mooy li nga xam ne moo jote xew kon yeneen jongante yi dinañu ko wéyal ni ki suba incha allah bu ñu xoolee ci wàllum transfert ki nga xamante ne mooy marko Marco Asensio bi nga xamante ne moom daanaka mën nañu wax ne mu ngi ñëw nekk out of contract ndax li tax ci contrat ak Real Madrid daanaka jeex na li ci des bareetul te ba fii ñuy waxee prolongé gul Aston Villa dugg nañu ci mbiram Aston Villa mooy club bu Unai Emery bi nga xamante ni bi mu fa ñëwee ak léegi gis nañu taxawaay bi nga xam ne am nañu ko léegi ñoom ñoo bëgg signé kii di Marco Asensio free transfer lay doon maanaam duñ ci teg benn koppar ndax contrat ba dafay jeex ak Real Madrid léegi nag ko salaire boo xam ne mu ngi toll ci huit millions d'euros voilà maanaam moom la ñu pare ngir bu jot loolu nak nena ñu sax mo double salaire bi nga xamne mom lay jot fofu la ci Real Madrid mom ki di Marco Asensio bo fi ñu waxe prolonger gul te li nga xamne mom la ñi di wa Aston Villa tek ci ji kat am solo kon mel ni dal xejna mom euh, filé du yag dara dinañu xam ay mbiram ndax day prolonger wala day dem euh, fofu la ci Aston Villa loolu yep dina leer ki di Marco Asensio nek element nag bu am solo fofu la ci Real Madrid ndax kat mom amna xarañteef bu baaxa baax door kat la man na pass long ballon yek deng mam corner yek coup franc yek lepp mom tank bi la ñii di waa Aston Villa di yóotu noonu ngir bëgg ci teg loxo bu ñu sukkandako ci kayiti xibaar yi voilà gars yi loolu fi gënoon fes kon ci ci tënkum xibaar continuer leen di suivre Sen Sport 221 The Best Sport News Channel